conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse tali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy na ci góor ñi nga xam ne dañuy takk jabar am ak moom ak i doom ba pare wàccee ko doom yi bëri na si ay jigéen ñoo xam ne ñoo ngi say dund ay jafe-jafe yu métte métti am na ku siy seede tudd Rama Diouf moom daal nay wax ne tasul sax ak borom këram waaye da ko wàccee doom yi njàng mi sax moom moo koy lijjanti ak lépp loo xam ne xale ñoo ngi koy sola moom Rama Diouf ko yore lépp loo xamante ni jëm na ci kër gi rek borom këram da ko ko wàccee Sylvie Ndiaye moom nag dafa daal di tas nee na tas na waaye nag sama borom kër ba woon dama bàyyee ak xale yi amul lenn loo xam ne mankas yi def maa leen di toppatoo maam jaaratin moom tim loole la wax nee na ki mu doon sëyal ñaari doom la ñu am mu wàccee ko ñaari doom ya moo yor seenum njàng te moo leen di dundal borom këram bi nga xam ne moo ko takkoon amutut lenn loo xam ne ma ngi koy def ci moom yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na bëri na ci Sénégal ay jigéen ñoo xam ne ñoo ngi siy dund ay jafe-jafe yu métte métti da leen di takk am ak ñoom ay doom bàyyi leen doom ya yéen kaay gi de la témoin xëy na waax ci comité d'organisation màggalu Tuuba gi nga xam ne démb doon nañu dajee daan nañuy def ab xayma nee nañu coronavirus bi nga xam ne ragaloon nañ ne boo amee fukki fan ak juróom màggal gi maanaam dana wullee ñaay ci réew mi loole amul loole nag ak sant la ñoom noone la ñu ko gisee Abdoulaye Diouf Sarr daan nay wax ne cas importé yi jot nañu daal di siy taxaw am na mesure boo xam ne tey ji la ñu ko jël moom ak ministre bi ñu dénk wàllum transport maanaam képp koo xam ne yaa ngi dugg ci réew mi rek dañ lay defal test obligatoire yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na li nga xam ne moom lañ gis Guinée Conakry jamono ji ab hold-up électoral lay niro te nag waa CEDEAO ñoom daa nañu si noppi na pata pataral te moo ne day la nga xam ne moo xewoon Gambie déggoon nañ waa CEDEAO kon lan moo tax dégguñu leen ci lii nga xam ne mooy raam ca Guinée Conakry ci ndam li nga xam ne Cellou Dalein Diallo moom jàpp na ne daf koo am moom Cellou Dalein Diallo daa nay wax ne victoire am dañu koo bëgg a nangu waaye nag ngi woo askan wi nga xam ne ñoo dëkk Guinée këram sax jamono ji takk der yi dañu koo fees munta dugg kenn munta génn yéen kaay gi de l'observateur mu ñu xamal naan ñu Cellou Dalein Diallo force yi dañu ko confiné Sud du Quotidien moom séquestration la wax Vox Populi li mu wax nee na kuréel gi nga xam ne moom lañ dénk élection yi ca Guinée Conakry résultat yi nga xam ne jot nañu ko génne Alpha Condé moo jiitagun yéen kaay gii di li Quotidien xëy di ñu xamal naan ñu Sodaaf kër gii daat na yëngu ginnaaw bi njiitu réew mi di Macky Sall waxee na nañ ko ko auditer ba pare daa dafay def ab commission de contrôle loole nag nga xam ne ñoom lañ dénk Sodaaf amaloon nañu ab réunion njiit la di directeur général ba di Ali Bathily ak président conseil d'administration ba di Ngone Ndour Ngone Ndour daat nay wax ne Sodaaf jamono ji dañu koy auditer ndax Macky Sall moo am jafe-jafe ak Youssou Ndour en tout cas démb yàq nañ Macky Sall musiba ak bi nee na ñii nga xam ne ñooy waa Sodaaf loi bi li mu wax depuis 2016 fa waroon a installé ab commission de contrôle waaye nag Ngone Ndour ak Ali Bathily dañu ko lànkoon bëri na ñoo xam ne ànduñu benn yoon ci Sodaaf ni muy doxee am na ñu leen yàgg gouvernement yéenekaay gi de la Témoin ñu fekk fa professeur Abdoul Aziz Kassé xelam màcc jëm ci jàngoro ji di cancer nee na Sénégal war nañu see jël ay matukaay naam na njiitu réew mi di Macky def na si ay jéego at mu jot lu toll ci fukki junni yu fekk juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent danañu amee jàngoroy cancer te ñi nga xam ne ñoo koy amee téeméer boo si jël juróom-ñaar fukk yëpp dañuy faatu yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu sa commune bu Mbàkke nee na maire bu Mbàkke di Abdou Mbàkke Ndaw dañu ko yóbbu fa mbaxana doonee benn ndax dañu ko tuumaal lu jëm ci mbirum détournement kaay gi du l'observateur nee na ñaar fukk ak juróom ñi nga xam ne teg nañu leen loxo njortu ne ay góor jigéen lañu démb lañ waroon a janoo ak procureur waaye nag dañu leen a mujj yóbbuwaat sa commissariat bu jëppal maanaam retour de parquet la ñu ama yéen kaay gi di libération nee na jii la ñu leen di létt wala ñu firi leen Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra moom nag daan nay wax ne pression bu mu tax ñu daal leen di libéré yéen kaay gi di stade xëy na ci Ligue des champions beek yi nga xam ne tey jii danañ ko xaarandi diggante Atlético Madrid ak Bayern diggante Ajax ak Liverpool yéen kaay